du fay antiguérisseuse soxna na fi fàllu fàll di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet dalay seetal ci alquran ndox euh, suuf waaye yamul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu a euh, yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fàll ma nga euh, nga jokk

Euh, jërëjëf mbokk internetu Sénégal Buzz 221 mbokk yi di am mbégte ak kontante bu baax a baax saa su ne ni ñu koy defee ak yéen di leen ay ndaanaan euh, wala yi nga xamante ni yéen nga leen bëgg a gis à travers loo xamante ni yaakaar naa ni sénégalais xam nañ ko aussi min ko ci rédaction bi di Sénégal Buzz 221 di suma xarit sama sister euh, Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi suñu ko waxee nag sénégalais yëpp dinañu koo xam te nag ñu dalal ko fii ci Sénégal Buzz 221 fas yéene séq ak moom li nga xamante ni moo di waxtaan dañu koy bàyyi Fatou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar jàmbur waaw maa ngi lay nuyu di la ziar uh-huh. jox sa wàcc wàccuwaay di nuyu sénégalais yëpp uh-huh. di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada waaye nuyoo boobu dama ciy jiital sàllangaar Lamtoor Bourguédé son excellence uh-huh. mu le président Macky Sall di nuyu nag internet Sénégal 221 waaw macha allah di nuyu internetu Sénégal Buzz 221 ni ñu koy baaxoowee rek saa su ne dañuy topp li nga xamante ni aussi moo di actualité bi actualité bi nag Fatou yaakaar naa ni euh, ni ko sénégalais xamee noonu nga ko xamee aussi di ko dund ak ñooma ah, muy li nga xamante ni tey euh, ñi nga xamante ni moo di waa yow ak yeewi askan bi programme woon li nga xamante ni tey moo di marche boo xamante ni tey dañoo génnoon ngir waxtaan ak askan bi euh, naka nga gisee li nga xamante ni tey moo di marche bi ñuy def tey ak taxawaay bi ñu ci am ñoom immature pardon immature <laughs> danga maa laaj. Mhm. immature laa fay sax moo tax ma gis fa immature. Mhm. am nañu sañ-sañ def mobilisation woote seen droit la kenn du leen ko bañal. Mhm. waaye damaa foog ne bu ñu demee ba woote. ay nit jóge fu ne dem. di jóge fo di jóge dëkk Kolda. Tamba di ñëw Ndakaaru ver 12 heures. oto ba këpp. mu am 11 morts. ak plusieurs blessés ñu nga hôpital. Mhm. te Ousmane Sonko yëkki woon leen man dama foog ne bu Ousmane Sonko nite woon bu nite woon dëgg dëgg dëgg. Mhm. wala li muy wax ci Sénégal muy ci dëgg dëgg dëgg. Mhm. muy patriote dëgg dëgg Sénégal ñor ko dëgg dëgg. damay teg lépp si suuf. mais est-ce que yëg ko. ba mu def euh, di wam nu tuddati mu def euh, yeewi askan bi. président tous ses condoléances on est de tout cœur avec vous xaw ma nag la. loolu la def di ma defee ne loolu war na mais déedéet. moom foog mu dem place de l'Obélisque ba pare ba tey xëy na tey ci guddi gi mu doo dem ci famille wala ñi nga xam ne dañoo feebar. nekk ci hôpital yi xam nga yaa sama si bi <laughs> nekk ci hôpital yi. ñu mën a waxaax mën a waxaax ñooñu xëy na masawu leen. fekk bay wéy na mbuus. beneen bi mooy Ousmane Sonko. man maa ne ko na góore mbir day góore. bu demee ba xam ne mënutu la góore. mu jël mu summi tubéye ma aal mu waddu may jégalu ci kàddu gi. nga ndax lan. dafa waxoon. day dem delloosi ji président Macky Sall. Mhm. laaj mille jeunes. waaw nañ génn mille jeunes ñoo ko wuyu see. dama foog ne même bu nekkoon sax 4000 ay 4 jeunes sax ñoo ko wuyu. Mhm. waroon naa mën a dem ba ca ba ca fee nga xam ne mooy palais. président Macky Sall. Mhm. daa waroon dem démb ci guddi France. waaw daa toog. def conseil des ministres ba ci ngoon gi. Mhm. ci lay door a départ. ah mais sénégalais yu bari dañoo jàpp ne président affaire yi fekk ko fi comme ñu bëri ñoom la ñu wax nee nañ président dafa daw mbir yi fekk ko fi. waaw loolu moo lay wan seen i kàcc yi. Ah. xam nga ñoom li ñu bëgg nit ñi dégg rek la ñuy dégg. Mhm. Ousmane Sonko waxoon day delloosi ci président Macky Sall. ma lay laaj tey jii manifestation bi ñu woote lu ma wund lu luy wundum lu ko tax a jóg. li leen naqari ci li nga xamante ne aussi moo ci réew mi ak élection législative yi nga xamante ne ci la ñuy jëm mhm. euh, complication yi nga xamante ne am na ci li nga xamante ne aussi moo di dossier ak yooyu ci yooyu lañ doon jug ak li xew ci réew mi daal bokk usu du dem usu usu bébé du dem du dem campagne bu koy boo mu concentré wu ci capp def je campagne du muy daw muy dee mbaa muy dund muy taw mbaa muy naat muy xam mbaa muy xamalu ko usu du dem lu mu bax ñu ngeer ko ñu mba baatal ñu ko pe mais est-ce que Ousmane Sonko bu demul yeewi euh, comment dire sax euh, bokk ko benn yaakaar aussi tamit ñu bëri nee nañ tamit warut a dem parce que erreur erreur ci ñaari cas yëpp la am ña erreur bi mu demee ci ñaari cas yëpp lii yoon dal seen kaw ñoom ñoom ñaari cas yëpp mais yoon bu demee si seen kaw ñoom ñaar kon ñoom ñaar ñëpp kenn du dem du question ñu kenn du dem dama ne yoon dal na seen kaw ñoom ñaar ñëpp ku nekk xañ nañ la liste boo du dem waaw Ousmane Sonko du liste yëpp lañ teree mu dem. Mhm. liste nationale lañ ko tere. waaw yow Benno Bokk Yaakaar tamit ñu teye ko liste suppléant kon moom foofu ana coow la. waaw mais sénégalais nag loolu nag bu ñu génnee liste kii bi euh, nu mu sax bu ñu bàyyee liste suppléant mu dem ak euh, te liste benn day mel ni kay Benno gagné na ba pare. Eh, bu gagné xanaa wóoratuñu seen seen bopp du ne ñoom. mais ay leader ay leader tamit boo leen génneewee tamit jël ñi nga xamante ne aussi ñooy di ay remplaçant nga teg. waaw dama lay laaj à qui la faute. est-ce que ah ak ki la faute mais faute bi ñoom ni ñu ko waxee ni ko sénégalais yëpp déggee faute bi ci ñaari cas yëpp la mais dafa mel ni far dafa am ci mbir mi nekkee ci ñaari cas yëpp parce que waaye seen seen mbir seen parrainage dafa benn te loolu yoon ne na ku ci xas ba ëppal wala nga manqué doto bam yoon waxul loolu yoon wax gis nga Malick Gakou lañ bëgg jël référence uh-huh. benn Malick gàkku yóbbul woon lu mat uh-huh. ëppul uh-huh. dafa yóbbu woon lu matul te yu matul yu bëri encore baaxul loolu moo taxoon Malick Gakou demul benn te defe naa ne tey ji nga nekk ci nguur wala nga ñàkk bañ a nekk ci nguur mhm. defe naa ne yoon mu nekkalu fi nguur nekkalu fi ma saama nekkalu fi ma demba Sénégal bi la fi nekkal mhm. ndax ba ñu waxee yoon moo tracé te bu fekkoon na ñun la ñu wax xalaatoon na mooy am mhm. kon Yewwi sax warut a bokk waaye yoon dafa ne Yewwi day bokk liste mii ñooy bokk li dina li mu nekkoon ne tey ji dafa ñu ut farfarloo wala leneen lu tax kon ba Benno Bokk Yaakaar ñu am ay liste yu ñu tëye bu nekkee rek Benno Bokk Yaakaar mooy buum mooy buum lu tax ñu téye benn lisam dañu waxte dëgg lu tax yëppam demul lu tax ñu sanctionné ko comme ni ñuy sanctionné Yewwi Yewwi ñooy ñan fu ñu toj ñu def seeni tuuxi duuna jël Déthié Fall jox ko mm. def def ko mandataire mu dem waaw lu ñu njëkkoon a wax bi ñu demee laaj naa la ko Déthié Fall ba mu génn lu mu wax li sii du lisam mm. ñu woo Barthélémy Diaz fekk Déthié Fall am na fa deux jours mm-hmm. mais bi coow amee ci biir Barthélémy Dias dañu wax xamul lu mbir mbiroo ñëw bërëx bërëxi téeli téeli naan Déthié Fall ne liste bi du listam Déthié Fall ne moom it liste bi du listam du liste bi lu déposé ñu demaat toogaat ba ci yàgg ñu ne Barthélémy Dias génn na Saliou Sarr la xamul lu mu doon def foofu ndax Saliou Sarr du du du mandataire te équipe la Saliou Sarr mu nga foon ak ñeneen ak ñeneen ñoo ànd yox Déthié Fall ñu demaat ba ci kanam Déthié kii mais pas boobu noonu pas Baare Ndiaye Mhm. ñu koy sant di ko gërëm de passage si yeewi la bokk mu daal di génn bu ñu fontoo nit ñi ba liste bi di dem xamoon nañ ne cinq góor la ak ñaari jigéen ndax Xalifa sàll mi nanguwu la nangu la nangu la lii poulayam mhm. nanguwu la bàyyi am euh, moom mii di ki nga xam ne mooy Barthélémy mi nanguwu la bàyyi am kon ça veut dire que ñoom bi ñuy dem xamoon nañ li ñu yóbbu baaxul. mais dañoo foog mais ñoom aussi li ñu yóbbu baaxul mais bi ñu xoolee mbir yi ci ñaari camp yëpp la erreur. waaw mais ma ñoom dañoo teel a génn avoué ñoom avoué tamit li nga xamante ne ñoom loolu lañ def waaw bi ñu avoué. Hmm. fekk na ñëpp leen. ba ci Mansour Diop ma nekk seen TV. Hmm. nga xamante ne moom bu dal ci président Macky Sall ñoom moo gën a mën a dal ci président Macky Sall. Hmm. moom moo ne njëkk wax bu leen fontoo nit ñi. nii tan naa ñëpp a ndëkk journaliste yëpp nag ñeme ku ne wax ñoom Aïssatou Diop Fall ñëpp a wax mais bi ñu waxee dañoo xam ne ne ñii nekk nañ ci toor mhm. ñu toggaat lu mu yàgg moom Déthié Fall mu daadee ne mhm. dafa moo joxoon Saliou Sarr fekk mu ngi jàpp ne Saliou Sarr dema nga déposé ma bi Saliou Sarr dem ba ci biir dem rocci liste bi déposé liste bu ko neex mhm. dégg ñu toggaat ñuy wax waxu liste yi pareeguñu Ousmane Sonko génn groupe WhatsApp bi quitté ko bi mu kere woon nekkoon si administrateur génn ci quitté ko carrément dem ci mur Facebook am ne def nañ erreur bu garaaw mu ngi mel ni luñ doon yelwaan ay at këpp nañ ko ci benn fan. Sonko ma wax lool. Sonko ma ko wax mu def ko ci mur Facebook am. Mhm. moom nangu na ko. Mhm. léegi ça veut dire que on va recommencer à zéro on a fait une grosse erreur. Mhm. la mu ci mur Facebook am. capturé naa ko décoration defoon naa ko. mais loolu aussi sax avoué nañ ko ci kanamu sénégalais yi. waaw wax na loolu waa léegi ñu def seeni toj-toj. ak seeni ñombe man li ma jaaxal mooy sonk ah. man xamoon man toogoon naa fi fan yii passé mhm. am na benn seen mbokk bi fi ñëwoon. man leen Sonko li mu wax nii nañ def très attention Sonko am na lu mhm. mën a avouer nii di wax y'a quelque sos d'autre ñu ne Fatou lu tax nga wax la man ne ñañ dem ba ci karam la mu leen di wax mu ngi ñëw xam nga sonk lu mu bëgg. Hmm. gis nga yàlla bu tracé ngay effacé. muy tracé nga effacé. Ah. sëñ Kébé dalay effacé tracé dootoo effacé ti ah. te looloo dal Sonko Sonko bu dee kon ni dëgg dëgg dëgg dëgg day dem ba ci kanamu Salla Ngaar lam toor Bourguédé ah. mu sukk si kanamam sukku jébbalu. loolu moom Sonko du ko parce que sëñ xam nga ndax lan. président dafa ànd ak yàlla te ku ànd ak yàlla ku ne sunu borom da lay dimbali. Mm-hmm. Ousmane Sonko saa yu defee tojaange pour dal ci président Macky Sall yàgg yàgg yàlla da koy feeñal Sénégal gépp teg si seen bët. ëmad yi fi amoon bii passé ba 14 morts dee. Mhm. déggati nga Ousmane Sonko mu wax ci. Mhm. dañuy waxtaare ba tey. Mhm. dégg nga sax mu mu mu ne ñoo ngi fàttaliku ñu fi deewoon ndax 14 morts yi. dégg nga ko yaa nga fa woon. dégg nga mu wax ci déedéet waxu ci ku dee perte nga. ñu ne woon foofu amoon na ñoo xamante ne dañoo ñëw rallier biir Dakar. bokkoon ci manifestation yooyu. yoroon ay sole ñoo rey nit ñi. ñu ne déedéet police ak gendarmerie police ak gendarmerie bu ñu la jox arme bal bi. dafa am numéro. waaw am série te ñooñu de xo bu ñu leen xoolee danañ xam bar bu leen tiré wala yooyu waaye ba xoolee xam ne ñu di gendarmerie de police ñu naan ay wax la ay wax la te boobu rebelle yi duggoon nañ barki démb. Hmm. lundi ay rebelle dañoo dugg Ndakaaru. Hmm. ñu nekk fële nga xamante ne mooy cité kër góor gi mais pas kër Ousmane sonk ni ñu commencé xam ne ne ay rebelle ñëw nañ fi ñu jëlee leen foofu andi leen fii Mamel ñu pare ñu tasaare leen bi ñu leen tasaaree. may félicité de passage ministre de l' intérieur. Mhm. Antoine Philippe Diome di euh, félicité waale ki nga xam ne mooy Moussa Fall. Mhm. DG gendarmerie nankaan mention spéciale di félicité tamit ki nga xamante ne mooy colonel Abdou Meng. Mhm. macha allah ñu def liggéey bu mucc ay fee nga xam ne mooy Petit Mbaaw ca koñ bu ñuy wax koñu pos. jàpp nañ fa tey 32 rebelles war naa la sànq photo bi. ñu ne déetawaay Salif saajo kii topp ci moom di deuxième chef. Mhm. Robert yi ñu ngi ko fekk fee ca Grand Yoff ñu jàpp ko. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen du ñàkk fii ak suba ñoom seen bopp dinañ génne communiqué bi lépp mu ngi ci réseaux sociaux yi. mais loolu ñu lan nga jàpp ni moo leen indi Sénégal. ku leen indi ku lu Sonko. Sonko du ma wax Robert Robert ñooy liggéey. Ousmane Sonko Fatou. mais Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko jàmm Casamance lay dox. non Ousmane Sonko Robert Ousmane Sonko mas ngaa dégg. Hmm. ñu wax waxu Robert. Hmm. mu wax ci. day may waxtaan ak yow rek <laughs> ba keroog bu mujjee wal fajir uh-huh. bi ñu ko posé question problème mu rebelle yi ak sunu jàmbaar yi fa jàppoon ak ñi ñu fa jotoon a rey uh-huh. lu mu wax rebelle amul Casamance rebelle économique moo fa am di uh-huh. la Ousmane Sonko ko wax ah. ñu teg ci ñaari fan ñu rey fa sunuy sunuy jàmbaar jàpp fa sunuy jàmbaar Salif Sadio moo jox Ousmane Sonko ko gàddi ko waaw garde corps bi ci sa si Ousmane Sonko rek hmm. te mu am yaram yaatu hmm. dinaa la yónnee vidéo bi Salif Sadio moo ko jox mu ngi tawoon sa wetu Sadio bi Sadio Salif Sadio moo dindi jox ko instant Ousmane Sonko Salif Sadio moo ko teg pression ndax fi mu nekk nii ay basam tas nañ ko hmm. jàmbaar bañ doon tu bañ doon bañ doon bay foofu noonu sunu jàmbaar yi ñu leen di féliciter de passage militaire yi rasé nañ lépp dàq nañ leen ñu ngi làqatu dugg nañ biir Ndakaaru ñu ngi dem fu ne Ousmane su jàppale ko si pour a jëlaat nguur wax nañ ko. nee na ñoom doom ji doon xaar ci Casamance am nañ ko. Ousmane Sonko mooy fils digne di Casamance. te li ñu koy li ñu bëgg est-ce que nekkul tamit euh, ci ñu yaakaar ci Casamance nekkul moom la ñuy ceex nit ñi ne ci Ousmane Sonko la ñu ko yaakaar wala yéen gisee wu leen ko noonu. waaye bu ñu bëggee jàmm. Hmm. lu toll rébellion Ousmane Sonko di doomu Casase waxuma sax maire bi mu doon en tant que doomu Casase en tant que kuy yeewoo Casamance. Mhm. di yeewoo Ziguinchor sa yaay nefa sa famille nefa rawatina tey ji nga nefa meer. Mhm. tey bu ñuy bu problème amee foofu. Mhm. ba suñuy jàmbaar dem fa yàq seeni base dàq leen. am ñu ñuy jàpp ak lépp Ousmane sonk lu ma waroon def. nan la waroon def. war woon génn félicité jàmbaar yooyu. ne waa góor li ngeen def kontaan nañ ci mosu koo def Ousmane Sonko mosu wax lu jëm ci rébellion Ousmane Sonko. baayam Mamadou Sonko je le respecte nag. Mhm. du ma wax dara lu déborde. Mhm. mu nga ca yow ma xiyam yàlla na xippee àjjana firdawsi. amiin moo nekkoon ah, indicateur robel moo doon liggéey ak robel yi. doon révélation yi doy na war. waaw yow loolu lool loolu xanaa picc yi sax xam nañ ko. kebe wala da nga di journaliste rek. bu ko cee bu ko non que man lii da sax nit di ko waxtaanee te kay. Ah, wax ko. waa xam nga ndax lan xam nga ah. ndax lan. dafa yegg foo xamante ne nii. l'heure est grave bu demee ba rebelle war mën a bëtt frontière yi ba mën a dugg ndakaaru njaay jël job bi fukki penc ak ñaar yi hmm. ñii ñu leen di jàpp Grand ñi leen di jàpp Petit Mbao hmm. nga war xam ne l'heure est grave hmm. gis nga léegi rey nu ñu bare gis nga yi di am yëpp ñu war a xoolaat mais aussi euh, loolu lépp ñu ngi ñaan yàlla na ko suñu borom yëkkati fii ci Sénégal te mu dañ fekk jàmm mais lu sénégalais yëpp doon euh, yaakaaru ne tey dina am ci li nga xamante ni tey moo di marché bi mm. euh, muy coow wala lu débordé loo xamante ne tey ñaanuñu ko woon yàlla mu am suñu borom def ci ndox mu sedd mm. ñu autorisé leen li nga xamante ni tey moo di seen marché tey ba jàmm amaat ci réew mi ñu taxaw wax li nga xamante ne moo leen naqari ci Sénégal yëpp dégg ko loolu aussi nak nga ko jàngate waaw c'est normal ñoom ay citoyen lañ comme tout à chacun mm. ku bëgg marché da ngay yëglu pour ñu yëglu la rek pour ñu ñëw couvrir. bëggoon nañ ko war a def dimanche. am na ñu fa ñëkkoon na ñëw. mekk mercredi bi ñu bëgg. préfet d'accord d'accord leen ko. ñu jox leen tamit ay matuwaay yu mat. gendarme yi toogee ne toog di leen seetaan. ñu def la leen neex pare ànd ak soo ko ba këram. ñu xam nga ne loolu rek du yoon. place de l'Obélisque si lañ waxante woon. place de l'Obélisque si jéem waroon tas. waaye jaar ci koñ yi dugg ba biir Medina naan Bamba Fall foo ne di provoqué. tey jii yàllaa ci bis na mu sedd mhm. ndax ñun xam nga duñu doon xaar Ousou mhm. Bébé dafa waxoon day dem déloger ji Macky Sall son excellence ñun dañ doon xaar pour déloger bi mu def ko ñun ñun pare woon nañu ko xaar dañoo toogoon suñuy matuwaay di ko xaar mhm. nee nañ ko la fi la woon woone daa mel ni duggum néegum góor may waxaat beneen bi mooy xalifa Sall dafa rate vocation Khalifa Sall dama ko yërëm xam nga dañ ñaan ku ñuy séntu ci avion muy jet privé. waaw nga jékki-jékki daani ci saretu mbaam moo dal Khalifa Sall. ci naka. dafa perte loo xam ne mënut koo rattrapé te président Macky Sall ndeysaan xol bee rafet day bëgg a def lu baax wala bon fekk ko ci waaye nag yàlla koy fay fay yàlla ëpp doole fu fay sunu borom. Hmm. fay bu sunu borom moo ëpp doole fu fay bu jàmm. fii nii Khalifa Sall fii de na xaalis ñëpp a teg ci seen bët mu nangu koy ba jooy fi jooy yu metti ba am ñu doon dajal pour fayal ko ko. Hmm. tëj ko. yaayam boobu mu ngi dund yàlla na xippee àjjana. amiin daal woo presse wax ne Macky Sall bu deewee te gisul doomam du ko ko baal. Salla Ngaari ak xol bu rafet ba mu xam ne moom it doom la toog palaasu yaay ji xam ne am na yaay bu doon moom la dina metti mu gracier Khalifa Sall ba mu ba woon Khalifa Sall ba tey mu nga kaso. mu gracier ko te Khalifa Sall boobu mooy taxaw naan Macky Sall li mu bëgg daf ko fi am nguur gi dañ koy fukkati si loxoom. par force lañu par force da da ñu bokk bu ñu bokkulee moom du bokk war naa doon xalifa Sall ba pare Khalifa Sall fi mu jaar yëpp ba du Diouf ba tey Khalifa Sall tey bu jaaroon yore moo doon nekk cinquième président Khalifa Sall fi mu jaar yëpp tey amu ci ginnaaw kenn ku muy nekk ku dul Ousmane Sonko rabaissé boppam à point. c'est honteux mais Khalifa aussi tamit élection 2024 yi moom it bu ñu ko bàyyee mën na nekk candidat Ousmane Sonko wax na ko nañu bàyyi Karim nañu bàyyi Khalifa ku ci nekk ñoo samp ndëndam que le maire gis nga Ousmane. Ah. li mu wax sax gëmu ko Ousmane toogul woon fii ne avant élection yi balaa muy ñëw lii législative yi waxul woon Khalifa par force la ci bokk. moom moo ne Khalifa Sall. par force la ci bokk ci élection yi. Mhm. waxoon na ko fi di. Mhm. de presse réforme. Mhm. ne moom moo ko à deux mois de derrière wala trois mois yooyu. Mhm. mu ne Khalifa Sall par force par force da ciy bokk. lu tax par Khalifa bokkul lu tax force wul bokk. Mhm. Ousmane nee na Macky Sall Sénégal doonewu ko ci ndeyam waaye moom it na xam ne Sénégal doonewu ko ci baayam te du moomeelu baayam te du ndeyam a yor crédit foncier wu Sénégal. Mhm. Ousmane sonk mu nekkee réew lay jaay ak xamadi. président Macky Sall du moromam ñun sax duñu ay moromam. dañuy wàcce suñu bopp maase ak ak moom pour mën a wax ak moom. ndax nag opposition yàgg na fi. temps Senghor nag ba ci son excellence monsieur président Macky Sall waaye li am ci moom mosul am ci opposition. ba mu ñëwee la xorma la orma kilifa yi dina xotteeku. ba mu ñëwee rek saaga ay kii sëriñ ñëw ba mu ñëwee rek saaga président ñëw ba mu ñëwee rek saaga institution ñëw. reewande nag mënut a weesu loolu maa ngi ñëw ci soo ko ma dem nag borom lex yooyu mel ni ma ñuq bajaan. kan ci ah Déthié Fall mi nga xam ne moom mi daa raté vocation Déthié Fall bu ñu ko nee na wax lu muy wax Déthié Fall lan la war a wax. Déthié Fall ana base politique am Déthié Fall ana mbooloo am Déthié Fall boo gisee sax nit ñi bàyyiwaat ko xel tuuti nii sax mooy li ñu ko def mandataire. Mhm. Déthié Fall nu mu mel ci politique gannaaw yàlla ñu def Idrissa Seck la tey jii Déthié Fall fi mu jaar ak li ko Idrissa Seck defaloon yëpp saa veut dire que moom Idrissa Seck moo ko doon dundal wane na ko it incompétent am Déthié Fall ana ana base am ngaa gis base Déthié Fall mun la bi ma sam base wala man maa moom man maa moom coalition bi mhm. topp di lambar lambar ci ginnaaw Ousmane Sonko mu lay bumloo di la bumiloo ba nga naan waaw Macky Sall duñ ko nangu duñ ba nii vingt vingt mois yi dese bu moytul du ko fi yeggali ñoo mën a fen xam nga ñu toog di théâtre seen théâtre hmm. lenn moom xam naa ko seen scénario yi ñuy yi ñuy def nii hmm. buñ ko joxoon saa neex moom moo liiwa leen ko mu joué leen ko ñu ngi joué seen scénario ba mu neex soon ko jóge fee ñëw uh-huh. ne Macky Sall firaawoon na firaawu la wax ñu ne Antoine Philippe Diome na dégager na démissionné usu usu bébé ndeyu Antoine Philippe Diome moo gën sa ndey baayu Antoine Philippe Diome gën sa baay mu gën la judd moom mu gën la ndeyam moo fi jur ministre l'intérieur yow sa ndey lu mu jur violeur bandi woyu caga góor jigéen faru njaga sekk waxa ci waxu njaga sekk yi Ousmane Sonko Antoine du la mas a tontu ndax du sa morom Antoine moo gën a ndaw ci gouvernement wu président Macky Sall te moom lañ ci gën a jox ndombal tànk gi gën a mag bu weesoo président moom la muy doxal tey jubal Antoine du sa morom te Antoine du moo lay tontu ñun gune yi sax ñooy wàcce suñu bopp pour mën a tontante ak ñu ne jëcc waaye nga ne Firawo na Sall yow boo waxee Macky Sall Firawo na Ousmane Sonko wàcc nga ndax sa baay moo nekkoon Firawo na fee ca ba muy dee loxoom dafa takk ripp ak deret ñaata nit la sa baay rey sa baay rey mu nga fële ca yooma xiyaam yàlla sunu borom di ko muggal ndax ñamu rey président Macky Sall ak Aris Parmares nekk na fi premier premier ministre nekk na fi ministre de l'intérieur nekk na fi président à l'assemblée nationale nekk na fi président de la république du Sénégal kenn mësul dégg Macky Sall def na fi lii wala def na fi lee ngeen jëfe sàlla ngaa lam toor bu gëdd percar moo la ko gën a weex tàll Ousmane Sonko wax ñu sa palmarès 15 ans fonction publique impôt et domaine ambal fa sa jabar bi nga takk muy mooy ba yaay Mouhamed Sonko nga ambal ko bi nga ko ambalee ay famille jóg dal di dal sa kaw nga bañ am problème mag ñi ngi naan viol ñi ngi naan du viol nga takku ko ba coow lu jiif nga dégagé ko yow yaay borom siwit boote yow yaay borom chocolat mante yow yaay faru Njaga Sekk yow yaay faru ki nga xamante ne mooy Pape Alé Niang nga bëgg moom bëgg moom ba jël li nga xam mooy Dakar ma teemee ko ko bu ñu yëngal Ousmane góor jigéen bi bañ koy voté ànd sàmm jiw réew jikko yi bi ñuy voté góor jigéen wóolo dangaa voté sur réserve moo soo see ŋaang góor jigéen moom du ñu ko fi ne góor jigéen du ñu ko fekk yaa góor jigéen bu mag bi laaj dama ne nga wax sénégalais yi Ndiaga sekk lan moo tax sëyam benn beneen bi mooy waxal sénégalais yi njaga sekk ba ngeen nekkee fële sa sibi pokotaan ci sa tool ba lan moo fa xew ba ambulance jël sa ko ñu yóbbu ko hôpital mu nekk fa 12 jours nanguwuñu woo famille mu ne nañ woo secrétaire am ba docteur bi wooyee secrétaire bi ne ko njaga sekka ngi fii dafa feebar hôpital mu ne ko lu xew mu ne ko viens si tu le ti tu vas être tu vas être choqué bi comprendre ba mu ñëwee nañuy takkee golo ci digg noonu la ñu takkee njaga sekk juutal ko lan moo lan mooy daloon njaga sekk ay kilifa nag may seetaan bëgguma wax yenn yenn yi wax ma njaga sekk fan moo xaroon ci moom ba ñu ba ba ñu enterré ko Ousmane Sonko waxal sa diggante yow ak Ndiaga Seck ak sa diggante ak a Pape Alé Niang ak sa diggante ak Rodriguez yow Ousmane Sonko nga ne président ngay gàkkal. aj uh-huh. léegi nag Ousmane Sonko. Uh-huh. na ñëw wax digganteem ak Rodriguez laa wax. Uh-huh. Pape Alé na ñëw leer la ñu digganteem ak Pape Alé fan la neexee ba mu jël li nga xam ne Dakar Dakar Actu mu may ko Pape Alé Niang mooy di bi Pape Alé mu yor. moo ko moom. Dakar Matin. Dakar Matin nañu wax. mais Fatou yaa ngi def ay révélation yu nga xamante ne tey kenn loolu loolu loolu doy na waar de. te buñ ma buñ ma nee nii ma génne leen ay preuve dama yor ay preuve lu leer nañu ñi nga wax lépp ci Sonko. lu leer nañu laa la wax. waaw ah, xanaa nga doon topp Sonko. de góoma de Sonko Sonko ñoo moom ñooy yendandoo ñooy ñooy fanaanandoo ñooy xëyandoo xam nga Sonko newoon nañu dañoo xam mu ngi sunu biir. Hmm. waaye na xam ne nu mu ñu xamee rek nañ koo nu ko raw. Uh-huh. Sonko xamuñu ñun ñoo ko xam sonk nu mu xëyee rek xam nañ nu mu nu mu xëyee nu mu yeewoo xam nañ ko bu ñu demee ba gis Sonko jour ba muy taxaw naan bi di wax Mimi Touré bàyyi bàyyi pa tata Mimi ah. guddi googu la ko Anna Diamanka won jaba jabaram Anna Diamanka ah. xeex xeex bu metti lu waral xeex bi ah yow yëgoo Sonko xale bu jigéen bi mu yor bi mu téye téye ko en otage xale bu jigéen foo ne téye ko en otage man otage daa ko mën a wax ma xale bi mineur la yow mayee nit ñi tuuti da ngeen bëgg a xam Sonko ah. mais lañu si fekk fan yu néew ni ngeen xam Sonko. Uh-huh. may sant nag di gërëm sama frère Ba Jaxate uh-huh. di ci def liggéey bu am solo it. ay fan yi néew di ngeen xam kuy Sonko Sonko am na ma sësam gisoo temps yële photo bi ñu jëloon xale boobu noonu te mu wot boppam. te mu nekkoon si wetu fóot Sonko gisoo ko. <laughs> yow kon xamoo fu fuy mitti nii mbaa xam nga ne bi di nga ñëwaat. man <laughs> kay li ngay wax damaa damaa mujjee tiit sax. man ci yi ngay toog damaa fu muy tàngee fu muy xoyom xoyomee. Eh. lépp yow laa ko jox dañoo nekk ci liggéey aw ma droit génneegum. Oh. te liggéey bi pareegut. Sonko dañ koo topp ba ci miiru bis bi Sonko réewut laa la wax sonk mun ta président Macky Sall Sonko amul lenn loo xam ne mën naa wax président Macky Sall lii wala lii. lan lay wax président Macky Sall mu ne président Macky Sall bu ñëwee ba tey réew mi doxut. Hmm. réew mi daa dellu ginnaaw. waaw lépp a cher. Hmm. Sénégal Europe ba gën a cher fu mu tollu Sénégal ñëpp a xam nañ crise mondiale am na parce que guerre Ukraine bi ak ak ak lii bi moo tax. Euh, euh, Russie bi waaw Russie bi beneen bi mooy. Uh-huh. dañoo fàtte bu ñu fàttee ma fàttali leen sunu maam Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee saako ceeb ñaata la doon jar. Uh-huh. du vingt-cinq wax nañu waxante dëgg rek. waaw uh-huh. ah, ceeb vingt-cinq mille la doon jar. Hmm. temps Abdoulaye Wade. ceeb jar na fi vingt-cinq mille. Abdou moom Macky président Macky moo wàññi lu bëri saako dem ba 18000. mais fu mu nekk nii moom lépp yokku yëpp bu yokkoo sax moom ma xam président Macky mu ngi rey boppam. Hmm. ci ci ci daara alimentaire yi. demal Europe sama benn xarit mu ngi Italie. Ah. Genova xam nga lu ma wax. Hmm. bu ñu demee ci Cyprès di ut di jënd dawlin. Hmm. amuñu droit jënd lu ëpp 2 litres. 2 litres lañ am droit jënd duñu jënd lu ëpp 2 litres ba pare li mu doon jar dañ koo tripler. laajteel ku la neex loolu du si ñun ca Europe la parce que ñun xëy na amuñu loo xam ne lu bari la lu ëpp dañ koy jéggaani te loolu tamit xëy na président dina ci liggéey pour comme te am nañu suuf yàlla may nañu ay baykat ñuy jéem a bay dundee mais est-ce que liggéey bi yéexul yéexul président yéexu cee tàmbali parce que boo xoolee 12 ans yi nga waroon a def nga toog ba mu des un an et demi ci liggéey est-ce que liggéey bi yéexul président lu yéex ci liggéeyam président la mu fi def ñetti président yi fi jote jaar yëpp ndax def nañ fi xaaj bi wala xaajaat bi ci ay ci ay liggéey dañuy wax rek président lépp mu ngi koy def lu mu mën ak lu mu mënu lekkul naanu talul njabootam loolu di xool Sénégal nu mu jëmee kanam te wane na ko su nu sunu maam Ablaye Wade mais boo mu gisee TER bi ku ko waxoon TER dina daw ci Ndakaaru mun ne waxoo dëkk BTR mu ngi ñëw pareegul mu defar ay estate dafay am emploi des jeunes de dindi enclavement total yi newoon ci biir daanement yëpp mu dindi ñu ne ñu ne déetuwaay mu mu yaatal yaatal yoon yëpp defaree hôpital yoo xam ne dernière génération xoolal fu ñuñ moo doon dem fu ñuñ ñaata temps ngay def ci biir ndox mi cinq cinq minutes nga nga yëg pom wàcc mais loolu lépp tey bu amee dund gi yokk nit ñi di ko jooy à chaque fois ñii ne jeunesse bi liggéeyuñu est que loolu tamit euh, nekkul loo xamante ni tey priorité la woon boo bu waroon a taxaw ci kanam nit pour pourtant priorité boobu mu ngi koy def président mu ngi jël lu mu mën jeunesse yëpp mënu leen a joxandoo liggéey. Hmm. ba pare am na jeunesse yoo xam ne dañuy bañ fii liggéey di ko dem Europe di ko fa nangu y a pas de sous mu nekkoon jeunesse bi nekkuñu di taamu. Hmm. lu ñu leen jox ñu jël. Hmm. ndax bëgg a ñàkk pour teral ndey ak bàyyi. wala lu ñu suturloo kon ñëppay liggéey. ndax président bi nit ñi liggéeyu ñi nga xam ne ay mag lay sax mag. troisième âge. président chaque weer yore yore yore na leen vingt cinq mille vingt cinq mille dinañ ko jàppale te troisième âge rek rawatina nag xale bu ndaw bu yor karaw gu ñuul te ñàkk goo dara ah. boo buggee liggéey da ngay liggéey dëkk bi am na liggéey de ah. bu la neexee nag nga ne lii laa bëgg wala bugguma di ah. sa biir bureau laa bëgg a toog kéem di ma ëpp may may may may tàppe bouton na na naan secrétaire loolu nag mënta ne te am na ñoo xam ne dañuy dem ba France. Uh-huh. dafa laaj bi tubaab nañ ma jeg maa uh-huh. nekk ci euh, maison maison de l' unité. Uh-huh. maison maison d'accueil. ah di nekk foofa ay ay màggetu tubaab di leen yor lu tax nanguwuñ ko fi tey bu ma la waxoon kaa ngi dem Fuuta ma jox la tool nga bay dangay bañ. damay bay kay. da am xëy na yow waaye tey am na kooku wax boo ko waxoon da lay dóor mbéj. ne nag maa yëpp. di jaay jomba ñaaw di ñor di loo leen amul. lu tax nangu leen a liggéey ku nangoo liggéey am liggéey. président nag mu def na fi lu fi kenn mosut a def naw ma ne kenn defu fi dara. Ah. président yi fi jaar yëpp jaay def nañ jéem nañ. Ah. waaye président lam fi def kenn defu ko fi. te yàlla tamit nangul ko mu doon it porte bonheur mu jig sénégalais yi nag ba mu ñëwee la gaz génn. Ah. ba mu ñëwee la pétrole génn ah waaw. Mm-hmm. ba mu ñëwee la ñu tappal étoile. ci lañ dégg coupe. waaye léegi kon nit ñi lu ñuy wax. boo déggee ñu ne gaz beeg pétrole boobu yëpp mu génn fii du ko jëriñoo boo déggee opposition bi de opposition bi. du ko jëriñoo dañoo ne gaz bi jaay ko ba pare. waaw ana bi ñu na ko ba ñëpp topp naan Aliou Sall suñuy 400 millions. ana franc timis xaaral ma ne fàng bi ne gaz bi nga xam ne ni génnagul sax jaay ko ba pare du loolu lañ waxoon mm-hmm. ba ñëpp naan Aliou Sall suñuy 400 millions mm-hmm. loolu ko mu ngi mel ni comme démb kon xam nga ne tey yàlla yàlla tamit leen seetal na Aliou Sall hmm. que nee nañ léegi nii président Macky Sall li tax mu dem Russie waaw dafa bëgg a euh, négocier euh, euh, Poutine pour pour mu jox ko pétrole bi ak gaz bi Poutine nee na ko pétrole bi ak gaz bi laa bëgg mu ne ko waa d'accord na yow defal ma li ma bëgg ma ma jox la pétrole ak gaz. est que loolu la waxtaan. yow du ñëpp a dégg nañ Poutine ak président la ñu hmm. président président Macky Sall président Sénégal waaye président Union africaine la. Ah. mu demal fa lépp te assez à saluer Macron dem na pour toogaa Poutine Poutine teg ko ne teg table amage bu gudd teg ko nee tegaw nee mais nu ko ne bu ma laal bu ma jege Salla ñëw mu génn akolaat ko taataat gal ko teg ko ci wetam waxtaan ak moom ne ko dama laa yàgg bëgg yàgg laa sopp mun na ko ubbil frontière bi bàyyil xeex bi bàyyil engrais beeg yii ñu dem ak bele bi. ndax da bu leen fàtte ñun ñi tamit ci la ñuy dund. mu waxtaan ak Poutine. Poutine ne ko nangul naa la waaye loolu ñëpp war a ñëw lu mën a taxaw président bu doon ñëw ñëpp a daw daw aéroport Léopold Sédar Senghor ko te ne ko gàcce ngalaama moom ak ki nga xam ne mooy sëñ Madi Niass ñoom ñooy lam dalane di ah. bu ñu war a lam dalane <laughs> sëñ Madi Niass sëñ Madi Niass sëñ Mahi Niass ak sa président Macky Sall ñooy lam dalane di ñëpp dañ président bul wax ci problème Poutine sa yoon newu ci Poutine daa bëri armée ñun amuñu nii amuñu naa mu xuus dem ba ci Poutine jàkkaarloog moom wax déggul làkk Poutine di ko wax ci français kooku di ko jox te Poutine ñëkk a teg seen bët loolu c'est à saluer gis nga ñoom ñu saluer loolu waaye dañoo ne président dafa dem jox na Poutine gaz bi ak pétrole bi ñu dellu ñu ne gaz bi ak pétrole bi dóor génn sax ñu ngi nii di ko jaay presque jeex na ñoom ñooy fen seen i fen ñooy contredire seen bopp gaz bu génn ko pétrole bu génn ko nu nuñ koy jaayee

waaw abonneel ah, te laal zëm bi. waa réew mi duñ jàpp ni temps yi waa APR la. de déedéet xam nga ah. ndax lan. Ah. yow réew mi rek nga. réew mi doo nga la ñor. ndax boo nekkoon waa APR. Hmm. doo dem ci opposition. ndax fi nga ñëwee ci man ni ci opposition nga jógee. wallaay dëgg la ndey ji seex nga jaaxaanaay nga hmm, hmm, tëddee. dafa fekk ni da ngeen topp fa askan wi ne. ngeen di dem di gëstu di jox askan bi loolu am na. nekkal leen fi opposition nekkal leen fi pouvoir askan bi ngeen fi nekkal. dafa fekk ne da ngeen di liggéey comme nit buy liggéey. di ndaw ne ci yoon war nañ ko mën a encouragé mooy suñu wareef te ñu leen di encouragé ah. ñu war ay encouragé bu baax te naa ñëpp dañu dem abona ji waaye may ñaawlu tamit ah. ni opposition bi def waa TFM ah. mooy defin ju ñaaw ndax Sidi Lamine Niass meen foog ma mee ma ñëwaat foofu de ndax Sidi Lamine Niass meen yoroon wal fajiri wal fajiri télé askan bi la wal fajiri yeew na sa fajar wal fajiri la voix des sans voix Sidi Lamine Niass liggéey fi liggéey bu rafet wal fajiri xamel woon baadool ak ku am Sidi Lamine Niass Ahmed Niass mi jël jël euh, télé baayam bi hmm. waroon a jël euh, patrimoine baayam bi liggéey ci liggéey bu rafet jël patrimoine baayam bi jox ko def ko télé Ousmane Sonko. Uh-huh. doo gis sax pouvoir bu ñu fa invité am ko Sonko jàpp ko Sonko. Uh-huh. te defe naa loolu lu ñaaw la tey TFM mais àndul ak sàll Sall même bu nekkee ne Youssou Ndour dafa nekk ci Macky Sall. Youssou hmm. Ndour liggéeyul Macky Sall. boo seetloo jàkkaarloo amul ku fa dul dem seen émission amul luñ ca dul wax amul opposition amul pouvoir tey bu ñu demee tey ba dem ba ca marché ba di ko couvrir wala nañu won a bàyyi ñu couvrir ko benn dàq nañ leen ñaar dal seen kaw lu ñaaw la ça ça se voit que Ousmane Sonko si moom ci lii rek la xam ñu koy ñaawlu di nuyu mbokk internetu Sénégal Buzz 221. Mhm. naan leen ñàkk fee abonné erreur la. Ah, nuyu na ñëpp ziar ñëpp te naan suul gaz. Mhm. du ko teree xeeñ. te troisième mandat dañ ko fi nangu wasalaam nga tëj Kébé. merci beaucoup mbokk di am mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak moom di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf. lu fay antiguérisseuse soxna na fi fàllu fal euh, di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet euh, dalay seetal ci alquran euh, ndox suuf waaye yamul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni kortu góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci au miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fal yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fal ma nga ca nga jokk